asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di bu baax a baax di nuyu ñëpp euh, di ñaan suñu borom defal ñu jàmm moom mi nga xamante ni ko am jàmm rek moom moo la jàmmal di ñaan suñu borom dugal ñu ci kaaraangeem gi moom mi nga xamante ni kum mu dugal ci kaaraangeem nga mucc yàlla nañu ko yàlla defal. Euh, dafa am mbokk yu bari yoo xam ne ñu ngi may interpeller fan yi ne ma ah ñun kat dañoo gëj a waxtaan ndax ñun dañoo jàppee suñu intervention dañ ko jàppee waxtaan amul benn prétention ci Macky Sall wala opposant wala Macky mu toog fi fukki at Modou Khoule toog fi vingt ans ça nous fait ni chaud ni froid ñun ko fi mënta toog bu fekkee choix Sénégal yi ñun suñu ñëw si li ñu amal importance mooy waxtaan ak suñu moroomu sénégalais yi nga xamante ni ñun ak ñoom dañoo doon ay sénégalais yoo xam ne dañoo bàyyi pouvoir bi bàyyi politique bàyyi lépp loo xam ne privilège la yu état di joxe ñu bàyyee leen ko. nekk si suñu liggéey nekk suñu coin di ci ŋawti ŋawti lu ñu man ngir fexe développer réew mi fa suñu kàttan yam man ñooñu laay waxal politik ku mënti yor réew mi lu fi waaye def bu ko sénégalais yi nangoo mën naa nangu lu ko raw man saama les saama fee nii chaud ni froid loolu dama bëgg mu leer waaye li ma gëm dëgg-dëgg te damaa gëm ni am na loo xam ne ku si nekk yàlla dina la ko laaj te du ko laaj sëriñ du ko laaj président du ko laaj député ku nekk yow la koy laaj ku nekk suñu borom dina la laaj sa taxawaay ku nekk dina la laaj suñu borom dina laaj sa njaboot kon ñaar yooyu xaaruñ ci ab sëriñ xaariñ ci ab euh, président xaaruñ ci ab député xaaruñ ci ab opposant ñun dañuy wax li nga xamante ni moom lañ gëm ngir suñu réew ndax ñun ñii bokk génération kenn du fi dundaat téeméeri at kon lu mu yàgg-yàgg dañuy wujj suñu borom sa ku nekk dina wéet ak sa yow dina wéet ak yow suñu borom ku nekk na wéet ak yow laaj la say mbir décortique ko lëñ bëtt ko lépp loo wax la ca gannaaw lépp xam na ko kon coow li jaru ko nañ baaxantal rek fexe ku nekk fexe réew mi mën a tegu ci ay tànk yoo xamante ni ëllëg suñu doom ak si ak suñu sët yi nga xamante ni ñoom ñoo ko nar a yor ñoo ko nar a ŋànk ëllëg dinañ leen jox loo xam dinañ ah ñun kat suñu waajur yi defar nañu réew mi ba mu rafet ñu jox leen ko ñun nag li ñu intéressé mooy le sénégalais lambda man ak yow ñi nga xamante ni duñu ministre duñu député duñu chef d'entreprise duñu fonctionnaire bokkuñ ci lenn loo xamante ni dafa laal ñuur waaye fa ñu nekk ñu ngi ciy bay suñu waar yaa xam sëriñu daara nga yaa xam enseignant nga yaa xam commerçant nga yaa xam chauffeur nga yaa xam loo mënti doon kenn gënu laa sañ ci réew mi suñu xel yi nag dañ koo jël di ko foowee mu metti ma lool le 26 mars bokk naa si njëkk a génn ne leen ñii kat am na feebar boo xam ne am na lu am kenn weddiwu ko waaye yóbbu nañ ko foo xamante nii ndax kon mi ngi rey tubaab yi rek sa ñun jàpp nañ ni tubaab moo gën a tedd moo gën a yay tubaab moo gën a sell tubaab moo doon li gën a kawe ba lu rey tubaab rek waru faa bàyyi africain kon mi ngi rey tubaab yi kon ñun dañuy jeex may leen feer bi li muy def ci tubaab bi du ko fi def ma am nag ay analyse leer yoo xamante ni man fi ma ko teg dama koo xam ndax it xëyum rek di wax c'est tubaab yooyu jànguñ leen si ay livre dañ faa dem dund ak ñoom lu ñu wax ci ñoom luñ mën a luñ mën a dul baaram dañ koo xam ma ne leen nañ leen def très attention ndax sibbiru li muy rey li muy rey mu bantuwaat sibbiru li muy rey ci monde bi coronavirus gi dee gi wax bari gi muy bari lépp ba léegi reyagul xaaju li sibbiru di rey ci àdduna bi buñ jëlee Afrique Afrique li fi sibbiru di rey boo ko séddalee téeméeri xaaj téeméer coronavirus reyagul benn bi mbokk yi li ma leen wax bàyyi woo leen ko xel dama ne. li si buri di rey Afrique boo ko xaajee téeméeri xaaj téeméer coronavirus reyagul benn ndax si buru mës na tax ñu tëj fi jàkka ndax si buru mës na tax ñu tëj fi école ndax si mës na tax ñu tëj fi marché waa mais kon xel dafay analyser ñun du ñu nangu ñu jël suñu xel yi def ko ay otage ñun du ak jur ay doomu aadama lañ dañoo am xel dañuy analyser fi ngeen jàngee lañ jàngee li ngeen xam lañ xam foo leen dem dem nañ fa pourquoi ngeen bëgg ñoo fooy man duma ko nangu ku ko nangu c'est ton man duma ko nangu liñ bëgg dugal nii di ko dugal suñu bopp yi c'est faux alarmisme bii ñuy wax amu fi c'est une maladie mooy pire sax mooy pire que yeneen maladie yi fi am waaye loolu duma ci soriwaat ndax ku nekk yaay jël say responsabilité ñun li ñu war a wax nañ ko wax ndax xamuñ kañ la xamuñ fan la waaye buñ demee dinañ ci bàyyi loo xam ne suñuy doom buñ ko dégloo xam ne seeni baay bokkoon nañ si ñi fi nekk réew mi sa lépp lu jaaruwul wax nañ ko ba lu leen si fekk loolu duma ci sore li ma am importance mooy am na luy commencé am Afrique luy commencé am Sénégal sa amul lu ko gën a dangereux muy xiif mbokk yi xiif moomu dina rey ñaar fukki junni nit ak juróom bis bu nekk neuf millions de personne la xiif di rey ci àdduna bi yow nga am feebar boo xamante ni am nga feebar yow yu bare yu mel ni si bur nga xam ne li muy rey boo ko xaajee téeméer benn bi rek feebar bi rey ko nga jël si ay mesures yoo xam ne mu ngi la nar a indil xiif gi rey neuf millions de personnes mais ana sa analyse ana say expert man parfois je demande ñi nga xamante ni ñoom ñoo wër suñu njiit yi di leen conseiller ana seeni xalaat li gën a dangereux muy ñi ngi créer benn nouvel ordre national man nouvel ordre mondial sama yoon newu si parce que Afrique mu see am benn part seen lijjantiwuñ ko suñu dirigeant yi lijjantiwuñ seen part ci ordre mais ordre national bi ñi ngi bëgg ut benn nouvel ordre national mooy lan li ñu njëkk tàmbale mooy fexe ba jaxasee émigré yi ak population sama xol day jeex su ma déglee rajo dégg ay gouverneur ay préfet ñuy jaay ñàmbaar j'ai appelé le commandant j'ai appelé le commissaire on a fait une descente il paraît qu'il y a des émigrés qui sont venus mel ni ay trafiquants de trop ñu mel ni ay criminels émigrés yi nga xamante ni tey bari na Sénégal gox yoo xam ne bu fa ndox amee ñoom bari na Sénégal gox yoo xamante ni bu fa courant amee ñoom la bari na Sénégal gox yoo xamante ni bu fa hôpital amee ñoom la bari na Sénégal ay cadre yoo xamante ni bu dul woon a émigré yi seen njàng du yegg bari na si gouverneur yooyu noonu ak préfet yooyu di wax di ngawti ngawt di wooyee jàmbaar di traqué immigré yi ñoo xam ne ba ñuy jàng kër immigré yi lañ doon jàngee seen leçon ndax seeni kër amu woon courant bari na si ñoom ñoo xamante ni buñ bëggee naan ataay benn kaasu léwal kër immigré lañ koy xaaraanee ndax mënuñ ko woon a am tey ñu jël population yi jaxase leen ak immigré yi adduna bi ku nekk di xëcc sa ñoñ ñun ñuy ñuy buux suñu ñoñ ñoo xamante ni seen adduna bépp dañ ko sacrifier ngir Afrique ngir Sénégal ñoo xamante ni dañuy def 40 ans ci àll bi bëgguñ tubéy ju baax bëgguñ bu mu baax bëgguñ tàll bu baax luñ am yónnee nañ ko Sénégal ngir ñun ñu jaxase ñu ak ñoom ñu leen di beddeeku di leen daw kon nit ñi dawee ay dëmm ci ay spéculation loo xam ne dañ dañ dañ koo dugal suñu bopp bi rek muy benn deuxièmement leneen li nga xamante ni ñu ngi koy dugal ci seen nouvel ordre national boobu muy jaxase peuple yi du ma ne sax peuple mooy jaxase région yi ay reetaan damay jàpp sax suma dégloo tey yenn tele yi ñu dégg benn préfet wala benn gouverneur on a fait une descente il paraît des gens qui sont venus de Touba mais venir de Touba c'est quoi venir de Dakar venir de Sédhiou où la le pour pourquoi parce que y a le coronavirus à Touba mais il y a pas le coronavirus à à Abidjan il y a pas le coronavirus à Séoul il y a pas Paris mais où est problème amul Dakar amul Sédhiou amul Rufisque parce que am na ay nit ñoo xamante nii dafa am lu leen yàgg metti ci Sénégal mooy ñoom vision bi ñu am ci Sénégal mooy vision indi fi Sénégal benn système boo xamante ni li ñu gëm seen maître yi muy tubaab yi ni ñu gëm ni ñu ni état noonu la war a doxee loolu lañ fi bëgg a indi bëgg fexe nañ fexe façon fexe bu ne fexe nañ ko mën da fexe ba sotti moo tax occasion bu am rek dañ ciy profité parfois nga dégg ñuy woote. am na ñuy jóge Dakar am na ñu jóge Touba yóbbu nañ virus bi nàngam incompétence de l'État mu doon loo xamante ni état da ko waroon a moytu fan ngay dégg benn télé ngay dégg ci àdduna bi ñu naan am na virus bu jugee Amiens ñëw na euh, ñëw na euh, Bruxelles wala am na virus bu jugee euh, Île-de-France ñëw na Bretagne am na kuñ contaminé mu jugee New York ñëw na Florida fan nga koy dégg incompétence de l'État waaye mbokk yi li gën a dangereux ci loolu lépp li ko gën a dangereux mooy jël bi ñu nar a jël en otage man dama naan ay jumaa ay jàkka yooyu man du ci wax lenn dong laa ciy wax nag mu di wóor na mu ne moom bu armée yàlla yàlla wàccoon ci kaw suuf Iran ndaw moom ci leen naa yi lay bokk li si des man xaw ma xaw ma ci dara mais bu armée wàccoon ci kaw armée yàlla bu wàccoon ci kaw suuf moom Iran ndaw ci leen yi lay bokk loolu moom wóor na ma moom. ñu si des nag man man ŋànku ma diine du ma sëriñu daara du ma islamologue ñoom ñi nga xam ne ñoom lay intéressé ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom la yàlla di njëkk laaj diine balaa mu koy laaj kenn ñoom ña ngi cee wax ku ci war a wax yàgg ku ci waxul it moom loolu moom say mbir la ñun balaa ñu ñuy laaj dinañ leen laaj waaye li nga xam ne ñoom moomal suñu bopp muy lii ñuy lekkal suñu bopp suñ dund gii suñu bakkan bii kooku duñ ko laaj kenn ñun lañ koy laajal suñu bopp nañ ko lijjanti ñii buñ leen seetaanee dinañ ñu xiifal maral ñu ñu rafle ñu sonn ñu ñëwaat bi ñu imposé leneen loo xamante ni ngir toog ci nguur dong la nguur jaral na leen lu nekk nguur jaral na leen lu nekk man nag li nga xamante ni moom laay woo sénégalais yi rawatina sama mbokk journaliste yi nga xam ne yenn saa boo dégloo seen information sax da ngay jàpp ne ñii yow sax yaa leen gën a informé wu yow. maa ngi gis ñu naan Brésil le Brésil se prépare à une hécatombe Brésil 6000 morts la am Allemagne am 6000 morts c'est Europe gépp ñi ngi tagg Allemagne ne Allemagne ñoo gën a am ñoo gën a baax ni ñu gérer crise bi sa Brésil am 130 millions d'habitants soo boolee France boole Espagne boole Angleterre li ñu teele rek léegi mu mat téeméeri junni nit Brésil teele juróom-benn junni ñu ne ko Brésil yow jeex ngeen waaye ñun jeexuñ loolu lañ commencé Afrique mooy tiital ñu yóbbu suñuy fit yóbbu suñuy xel boole mag ñi ak xale yi mag ñi naan xale yi dañoo war a toog dañoo war a nàngam bu fekkoon dee nii naa ne la ba bawu fi mag bawu fi xale ku war a yóbbu da lay yóbbu loolu du wax ji wax ji mooy lii préparé wu mooy xiif gii di ñëw ci dëkk bi xiif gii di ñëw si Sénégal dañoo war a taxaw jël suñu ju tol suñu tàll taxaw ci ngir mu bañ fee law ndax kenn du ci mucc de xiif ku yaakaar ni yor nga loo xamante ni mën nga koo dundee ba bu xiif ñëwee nga mucc yaa ngi nax sa bopp xiif kenn du ci mucc kon war nañ cee mën a taxaw suñ marché yi ñuy tëj suñu entreprise yi ñuy tëj suñu commerce yu ñuy tëj ay caaxaan la jumaa yi ña ca war a wax buñ ci waxul loolu seen problème la ñun loolu lijjantiwuñ ko mais ñun li ñuy lekk lañuy wax ñun suñu lekk suñu naan suñu dund gii nga xamante ni moom yàlla ñun la koy laaj ëllëg du ko laaj kenn ñun citoyen lambda dañ ca war a taxawal suñu bopp liñ ci njëkkee nag mooy waxu dof yi ñuy dugal ci bopp nit ñi tiital gi ñuy tiital nit ñi information yi ñuy dugal ci nit ñi ngir tiital la bu leen ko gëm je vous le bu leen ko gëm ay wax ay wax yoo xamante nii la leen doog lañ si jublu muy tiital la ngir lépp luñ bëgg doxal rek mën koo doxal léegi nag la balle est dans notre camp ñun ñooy xool ñun nan lañ bëgg a taxawee ndax ñun dañoo war a doon ñoo xamante nii dañuy nekk ci réew mi ñi jàppee ak jur ñuy jàppee ñoo xam ne ànd ak seen xel di leen ñàkkal fayda di leen manipuler di leen def noo xamante ni xale bu ndaw sax boo ko naree def mu bañ wala ñun dañoo war a jug teg ay mesures yoo xamante nii dinañ wane ni ñun ñii kat ñun ngeen di jëlal décision décision yi ngeen jëlal ngir ñun baaxul ñu bañ ko mbokk yi nañ bàyyi xel bu baax a baax ndax ëllëg ñun moomuñ ko suñuy doom ñoo ko moom sa am nañu responsabilité bu ngand ëllëg lan la ñuy bàyyee suñuy doom sauver sa bakkan bii ci ab feebar sauver sa bakkan ci ab feebar boo xam ne sax amaana fii la lay baax ndax jar na nga xiifal ay millions ngi nit na ci ku nekk xalaat